ak euh, Ameth yu Ameth ginnaaw bi ñu la nuyoo ndax mën nañoo xam sa tànk tey fii ci Ndindi. waaw fii nag euh, doon taalibe nag war a ñëw màggal si ba ba nu amee ñetti at ba léegi yaakaar naa ni ñu ngi ñëw di màggal si Touba sëñ Fallou nag moom daa da di yoon wi waaw moom da di yoon wi moo tax. fàllu fàllu moom bu wootee ñëppay ñëw waaw moo tax ci bisam bi yàlla na yàlla def yàlla tàppe xol yi ñun ñëpp ñu ne ci jàmm ndax fàllu jàmm rek la woote waaw loolu waral ñu ñëw. am na solo ana Ameth Thiou euh, fu ñu koy dégg. waaw xam nga dafa am loo xam ne dafa am ci àdduna bi muy mbas mi waaye ñun ay taalibe lañ te ay sénégalais lañ waaw lu mënti am rek sunu sëriñ. xamal nañu ni ñun woon mën nañoo gérer lu ne moo waral ñu ngi ci suñu jàmm di sant yàlla ba nu yàlla boole tey ci Kazu Rajab 2021 ñu fekke ko tal ko ba mën a ñëw fii ñëw nag ci kër sëñ Baara Mamour mi nga xam ne day suñu xarit di sunu wëlëre doon nit ku baax waaw moo waral ñu mënuñoo dugg Touba te du ñu ñëw seet si ko ndax suñu xarita waaye daal Ameth Thiou daal mi ngi mi ngi nii rek comme ñëpp rek. Mm. waaw nag da ne yéen a ngi ci jàmm te jamono ji euh, mbas mi laal na artistes ku nekk xam na ne yëf yi doxatul. waaw euh, waaw waaw non ngi xam nga ab jullit nag moom day nangu dogal ba pare mën a muñ jàmm rek boo ko amee mooy ça veut que boo yeewoo di am tan yàlla boole la ci ñi nga xam ne yéen a ngi yeewu kenn déggu la ci feebar bi dégguñu ko sa mbokk loolu rek sant la. loolu rek leneen li nag moom euh, sunu borom ko koy bàyyi rek ndax yàlla moom mooy moo yor jàmm mooy jox jàmm ñun daal ñu ngi sant yàlla ba xam nekk nañ ci deux mille vingt et un bi ci jàmm ba mën a taal suñu oto ba mën a ñëw ci Kazu Rajab ci ci jàmm. ñu ngi sant yàlla daal. amoo njàqare ci euh, artistes yu ndaw yi nga xam ne boobaak léegi mbas mi tax na euh, mënatuñoo doxal seeni i mbir euh, yëf yi xaw a laal seen carrière tuuti. non ñëpp la laal yëf yi ñu mag ñeeg ñu ndaw ñeeg ñun ñëpp la laal ndax man dama ci génne album def ci quinze millions Youssou Dieng mii man ak moom a liggéey album bi mais tey amul résultat mais da nga koy sant yàlla waaw ci 15 millions mu dem noonu mais da koy sant yàlla xam ni mbas mee ñëw rek te mbas bi ñëpp la laal nag. ci ay dara njiitu réew mi tamit mu nee na déglu na ndaw ñi nan ñaan yàlla la mu déglu ndaw ñi ba dégg ko mu jëfee ko bu ko defee ndaw ñi dellu ca la nekkoon Sénégal démocratie moo fi am kun fiy falit ay carte lan lay fale sañ sa ba rafet yow ndekki ba suur dem votel la ci jàmm nga gañe mais leneen mënu fi am te leneen du fi am ndax duñ ko nangu suñu mag ñu baax ñu du ko nangu réew mi nit ñu baax ñu am personnalité duñ ko tiit parce que ñu tiituñu parce que xam na ni lu mënti am jàmm waawoo ne dal yaru ba nit ñi naan Macky du wax ba bam ne coppet réew mi te noonu la ko ku ne amee nag Senghor bi muy jël réew mi dal la dal dal la ñëwee Abdou Diouf bi muy jël réew mi dal la ñëwee ab lay Wade sunu maam bi muy jël réew mi dal la ñëwee Macky noonu keneen kuy ñëwit dal ngay ñëwee rek ñu jox la réew mi Sénégal ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ko bokk Touba Gambi lépp ñun ñoo bokk ndey bokk baay Ndar Louga ci biir Sénégal la bokk Casamance ci biir Sénégal la bokk ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay nanu ànd ci dal ànd ci ngor ànd ci dignité njiitu réew mi nag déglu na xale yi déglu nañu na doxal ba mandaam jot ñu votal keneen mu jël réew mi Sénégal continuer ci jàmm sinon ku fi indiwut loolu mënoo jël réew mi wala nga indi fi duug duuga ba jàmm du am jàmm rek am parce que jàmm ji dafa jiitu ñun ñi suñu juddu jiitu juddu président Macky Sall jiitu juddu président Ablaye Wade jiitu ñeneen ak ñeneen jàmm jooju moo fiy sax ku yaakaar ni leneen dina fi am jàmm rek a fi am man man foofu laa ne. incha allah jërëjëf